asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu mbokki taalibe yi nekk bu mag bi di Touba Thiawén nekk ci bis bi Sëriñ Touba ñëwoon fii Thiawén ñuy war ubbi ca màggal gi mu nekk ñaari mbégte ñu war a ubbi jumaa ji mu nekk ñaari mbégte ñu taxaw ak suñu kilifa suñu nijaay Baye Cheikh Saw moo nga xam ne moo ñu ubbil sax bi mu mu war cee taal seen ay kàddu ñu soog ci liggéey bi bisimilah Baye Cheikh. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokki lislaam yéen bokki taalib yi ñu ngi nuyu ñëpp di saar ñëpp ñu jigil ci sax mu Muntaxa Mbàkke di ñaan mbàkk fi loolu taan ak wér yàlla na fi yàgg tànd ak wér ñu yàgg fi ak mboolem ko ak mboolem ko bokk ak mboolem ko bokk Sëriñ Tuubaa ak mboolem taalib ak mboolem jullit yi dëkk bi nag taarixam lu yomb la lu jafe la ndax taarixul islam la taarixul islam nag yomb na jafe na dëkk bi maanaam ki nga xamante ni bii moom la fi sëñ moom moo moo taxoon sëñ sëñ bu mag fi ñëw mooy Serigne moo Serigne Momar Saw moo Momar Saw moo doon kilifa nga xamante ne bii yàlla da koo mayoon xam-xam may ko baatin moo jur ñi fi moo jur ñi fi nekk ak ñeneen ak ñeneen ah, ñu bëri ñu bëree bëri maanaam ñëpp ñëpp bokk maam ñi maam mel na maam la ñëpp bokk ñëpp bokk maanaam nag képp koo xamante ne bii lu bëree bëree bëri bëri ci ci ci ñi sant Mbàkke ñi buso sant buso jaar nañ fi di di di wut alxuraan Serigne Moustapha bi doo ko na xam na ko. fii la jànge ba mokkal alxuraan Serigne Bara Mbacké doomam fii la jànge Mamor uh, Dendey nekk na fi doomu Serigne Fallou ñëwoon na fi dëkk bi dëkkab leer la dëkkab dëkkab xam-xam la ñu bëri jaar na fi di sàkku xam-xam yàlla dafa yàlla yàlla yàlla dogal na mu nekkoon fi Serigne Souleymane Saw ku fóori ci àdduna bi xam nga ko moo jàngal ñu bare bare bare bare bare bëri Serigne Momar Saw nag man lu ko ma ay ci doom Serigne Serigne uh, Serigne Souleymane Saw Serigne Issa Saw Serigne Amadou Motar maam Omar Saw sa maam Youssouf Saw sëriñ Modou Binta ca Kaolack ñi ñoo doon ay doomam yu góor donc yëpp nag amoon nañ leer amoon nañ xam-xam mu dëkk bu baax dëkk bu màgg dëkk bu tedd dëkk bu ñu sakkoo xam dëkk bu ñu sakkoo leer képp koo xam ne ñëw fi ngi ñaan yàlla faj saa seet fàq ci bàttin jërë ngeen jëf si kontaan nañ bëgg nañ unaaji fi sirrin wa wa artaji سلائي وإسلائي بأهل والتربى سللت له لا للعدا ثم كانني وكنز كتاب نبو يكسف الكربى سللت له لا ah, mbokk yi ñu ngi fii nag ci barab bi ñu jógee ca penc ma ñu ngi ci barab bi nii taxaw ak sunu kilifa Baye Mor Saw Baye Mor Aada Saw ñu koy jox mbokk ci kilifa dëkk bi mu wax ci historique bi ak jumaa ji yëpp bisimilah Nidia Mor waaw asalaamaaleykum ñoo ngi leen nuyu baax a baax di leen euh, dalal jàmm ci bis bu màgg bi di boo xam ne bi euh, lépp sëriñ bi la delloo sëriñ bi moo fi ñëw ñëwaat fi ñëwaat fi ba ñëwee ñëwaat fi ñëwaat nag benn kilifa gu am solo gu mag a mag a mag na ci gox bi ne fii de buñ xamoon li fi nekk dañ ko toppatoo ndax nag yër ga sa Mbàkke ak ga si Daaru Salaam ak li de def fii si fi benn la kon nag bi mu ko su waxee nag mbooloo mi jóg indi ay muul commencé ko defar ba li yëpp juddu ci muy màggal gi tey kon nag yéen bu ngeen ñëwee di ci def euh, liggéey ah kon fi ngeen euh, diir foofu la daal yàlla na yàlla barkeel seen liggéey ngeen dem bu bokk ci télé gën a mag Sénégal ndax lu am solo la ndax bis yu mel nii boo ci duggee rek lépp loo ci def rek mën nga si jëlee fajog aajo kon ñoo leen ko ñaanal yéen ñëpp te xam ne bis bi bu am solo la bis la boo xam ne bii ci bis yu mag yi la bokk ndax sëñ Tuubaa fët dafa jaar rek julli fekk ko mu julli waaye taxu koon kon nag béréb bi lu fay ñaan rek suñu borom ko may ñu leen gërëm baax leen sant leen ñaan yàlla jërë ngeen jëf kon euh, euh, xam si ñu ubbi tey rek nga xam ñu ubbi tey ji euh, lool ñoom ñoo fi doon liggéey di fi jaamu yàlla la rek leen luy ñëw am na seen alaaw may dafa bëri lool comme seen ñaan mooy commencé ñëw ne nañ taatan ndab yu yaatu te xam ne li ñaan il faut mu am jumaa di cee bokkar wa leen ñëw hôpital yaa ngi fii station yaa ngi fii lépp a ngi fi léegi caawen léegi mooy almadiwu Touba kon nag dañoo dem ba kii jaay seen kër bi Touba di joxu si fii kon donc ñaanu mag yi moo yëg si ñoo ngi leen di totte galaat waat ne daal vraiment sant nañu kontaan nañu seen liggéey ndax yéen tamit amoon ngeen ne rek amu leen jot wala nangam ngeen wax seen i teel ñëw ñu ngi sant baax le bokk ak yéen jërë ngeen jëf bisimilah ñu ngi fii si barab bi ñu fekk fi suñu baay suñu am sata saaw mu nekk faggoog suñu Moustapha mu laaj baara ñu baam sa bokk ci kilifa yi di sa def sëñ Mor mag ci dëkk bi jox ko rek mu leeral ci barab beeg ak bis bu tedd bi nekk nii bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu bokk julli ni sant suñu bu baax a baax a baax di ci bis bii fii day suñu solaaji baar ñoo ngi lay nuyu di la siyaar suñu xel dal na kon bu ñuy jàng kaamil bu ñu bëgg a bëgg a àgg leer ak Serigne ñëw suñu xel dal na kon liñ fi doon ñaan nangu na Mbàkke buñ fi ñemee sa maam a tax sa maam Xaadimu Musaa ñoo ne ñett yoon fi fekk si moo si ñetti yoon defal nañu loo xam ne itam duñ ko fàtte mukk moom sa maam ñun waa Thiawane de ñaag nañu ñaag bu wér wér ndax su fii la suñu maam xëy woon fekk sa maam njaarim kere ba mu jébbaloo mu daal di woo maam Cerno Birahim ku baax suñu Afa Mbakke maam si Xanta suñu Omar Galo Ngal suñu Malick Basin si si Mor Sam moo najaayam ñu àndoon ñu àndoon dem ci sëñ ba mu ngi ma maam si rafet ak romb jaana wërngalu daan si Mor Sam jubal toog mu gantal moo na ko ndigal mu toog mun na xool na jëmb jam jëmb jam aljante dund te loolu seere suñu maam loolu ko njëkk a defal kon loolu lu rëy la yëmu ca ñu wàccee liggéey sun ab taawam duma taar saaw moo ko joxaloon boppam ku baax ki mu jox ko Mame Mor Diarra mooy dib taawam ba mu liggéey fii la war a fes dem njaaram na ko Mor sëñ Mor saa wàcceem liggéey mu woo suñu mbàkk bisu na ko na ko taxawu te buñ ko denc guddi nga njëkk ba mu naan niñ ko kat ku ko seen i jéggal la wala yooyu ngeen yëpp samaam defal na ko ne sëñ Mor Saw buñ ko denc guddi nañ njëkk ba mu naaj nañ ko jëkkat ko seen i la loolee seere sa ay firndi firndi lañ ci am sama taw bañ ak Ousmane Sa Ousmane Say ma moom biñ ko indi fii man gane gu ma dund daaw jéeg bi ma fi mag rëmatu saaw jot naa ko percal moo gën a sa sa percal bi jotaguñ nañ juróom ñaar fii yoo xam ne kenn soppeeku ci kon lépp yàlla ak sa maam rawatina Sëñ Fallu Mbàkke nag gën ñu fee ñemeel sama Baye Mar Saw mooy Baye Mar Lemane Saw mais juróom fukk ak ak benn benn la dund bind juróom fukki kaamil ñii naw man Lemane Saw man Lemane Saw fanweeri kaamil su bokk bàyyam juróom fukki at dund bind juróom fukki kaamil lépp yàlla ak sa sa maam kon sëñ bi sun xel dal na sun yaakaar yokku na barab bu yéemee ngi nii ñoo ngi ñaan nga fasal ñu képp ku fi ñëw rek yàlla jéggal la àdduna lu ñàkk solo la Cheikh Mourtala Mbacké boo ko ma sañ la yàlla nga gudd fan doo amin kenn musu dégg mun amin Cheikh Mourtala yàlla nga yàlla nga fi yàgg mun amin kenn musu koo dégg yàgg fi baax na waaye nag jubak sa borom moo am sa borom mooy la am solo yàgg fi baax na jubak sa borom am solo doo amin mukk kon nag Mbacké nu yàgg fi nu yàgg ak lu mën a daan daal nañu am jàmm teegal la fii daal sa maam mooñ fi ñemeloo baxaw faal moom wax ci làmmiñam ñaar bi nga ko njëkkee fal suuf euh, suuf chef arrondissement suñu fal moo ko demal caawén si déem nga ñaan fa demal caawén nga laajte déem ga say sa sa maam de moo ko wax mu ñëw fii kon buñ jàngee ba toll fii nga ñëw fii sun xel dal na sun yaakaar yokku na jërëjëf jërëjëf ñoo ngi sant bu baax a baax nag ci mbégte mi nu am muy mu woote woote boo xam ne nii benn la ci noonu nit kuy dem ku ku dem bàyyi mébét rawatina jullit kon mag ñi fi nekkoon nga xam lislaam rek la ñor xamoon nañ yéene def jumaa kon bu leen ko sëri defalee seen xol sedd kon mu mébét xàgg na mbàkk ñoo ngi la di ñaan nag bokk yëpp ñu xam lan mooy jumaa nag juma ab jàjja la nekk ci dëkk bi rafet ne suñ jumaa jaa rafet rek déedéet dañuy bëgg nga di ko joxe waxtu juróom waxtu mën nga ne ca di ca taxaw loolu mooy mooy jumaa bi wax ab soññee la ab jàjje la ci jullit kon si Moustapha jërëjëfati nañ ko ñaan mu yàgg volati wér jëmm ju baax a ngi nii maanaam dañ koy seeral lu dañ koy seeral jërë ngeen jërëjëf waaw yéen itam eh, yéen waa ahlu murid jërë ngeen jëf seen taxawaay rafet na ñoo leen ñaal ngeen ngeen yokk lool sëñ bi moom moo am lépp rek seen seen xel daal sëñ bi leen di liggéeyloo sañu leen koo bañ liggéeyal sëñ bi nag ñëpp ko bëgg waaye li jëf mooy nag sëñ bi liggéey loola gannaaw lu mel ni rek tax a waxtu moom ma di leen ci gis ena seen xel daal ciy sëñ Tuba وجسماني وليقبل الكسبان قديم Ah, kon ñu ngi fii ci barab ba léegi ñu feggoog suñu mag suñu Abdoulaye Saw mu wax ci suru suñu bu Bousso mi nga xam ni moo nekk fii si barab bi yor lu yàgg dana ko suñu Baye Fallou Saw bu ko liggéey bu rafet kon ñu jox suñu Abdoulaye mu sànni ay kàddu bisimilah si Abdoulaye. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan télévision Al Mouridiyyah TV. te tey muy bis boo xam ne bis bu rëy ci ñun la muy bisub uh, ñaan bisub fàttaliku ñi nga xam ne ñooy sunu waajur ak sunu maam yi nga xam ne ñoo sosoon barab bi te gën caa ràññeeku sëriñ Mamar Saw nekkoon koo xam ne kenn umpalewu ko ci dayoom digganteem ak sëriñ Touba sabab bis bi ñu ngi fii daje di leen fàttaliku di ko màggal muy bis boo xam ne ñoom euh, ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon di sunu waajur yi ñoo ko soso sosoon daan ko dundal tàmbalee ko ci sëriñ fan lu Saaw sunu baay ak rakam yi nga xam ne ñoo ko fi wuutu ñoo sosoon bis bi ci taxawaayu alxaaji Amsatu Saaw ñu ñaan yàlla euh, gën a dëgëral taxawaayam waaye di ñaanal tamit euh, sëriñ Moustapha Saaw ummi mi nga xam ne moom itam jàmbaar la woon te yàlla def mu jiitu ak mboole booy dawle yëpp ginnaaw loolu it ñuy fàttali ne bis bii euh, ni ko ñi ma jiitu waxee li waral bis bi mooy Serigne Touba Xaadimu Rasul moo daan jóge Mbàkke di ñëw di seeti sëriñ Mamar Saaw fii ci barab bi ñu toog garab gi ngeen gis mooy mm, barab bi nga xam ne fii sëñ bi daan dal wax nañu ne ñëw na fi ñii ne ñaari yoon ñii ne ñetti yoon alaa kulli xaal daal sëriñ bi moom seqi nay jéegoom ñëw fi yendu fi ba ngoon mu waxtaan ak euh, ki nga xam ne mooy taalibeem ba sëriñ Mamar Saw ñu diisoo ci la ñu seqoon euh, ginnaaw gi mu ñaan lanteek moom bis boobu nag la ñuy fàttaliku tey jii di fi daje dund dund goo xam ne dund bokk yi lay doon dundal bis bi ci jàng alquran dundal ko ci sunna salaatu ala nabi saafonte te itam berndeel gan ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw loolu moo doon sababu màggal gi tey nag daa am lu ci dolliku loo xam ne dañ ci e, ubbi jumaa ji nga xam ne moom lañ tabax fii ci pénc mi mu nekk liggéey boo xam ne e, kilifa yi ñoo ko ñoo ko taxawal ba mu yegg ñu war koo julli ci ndigalul Cheikh mun taxaa ñuy ñaan nag sëriñ Mouhamadou Bousso mi nga xam ne sëriñ Modou Bousso Saw mi nga xam ne moo nekk fii ci jotaay bi di jëwriñu liggéey bi te rafetal ko lool ak sëriñ Moustapha Ndeela magam ak sëriñ Ibrahima Saw ak sunu xalifa Baye Cheikh Saw moom mi nga xam ne mooy yor kàddu caawindiku ak mbokk yëpp ñoom ñi ngi fi. ko oh, bokk julli bokk taalibe noo leen di nuyu di leen seet leen baal wax leen baal di ñaan ñu fekk ay diwlin yu bëree ba suñ Bamba di ñaan sëñ Muntaxa suñu Bamba bàyyi ko fa lu yàgg ak sëñ Mamadou Lamine Baara mi nga xamante ni moo fi toog sëñ Abdoul Ahad fii ci dëkk bi Touba Thiawène ah yéen waa rajo bi nga xamante ni yéen fa ñëw yàlla doon leen jàmm xewal yokk seen liggéey ak seen Tuubaa ah barab bii nag day benn ci barab yi mu mel ni Sëriñ Bamba dafay ñëwoon ay yoon te Sëriñ Tuubaa kenn mësu ko xoo ngan fenn fu ma dem ah, yàlla ko fay yóbbu xiir mu yóbbu mu dem fa ñooñu jag ñamaroom bu jag fii jag na a ah, mu mel ni ñun bi ñuy tuut tànk dañu daan jàng kaamil fii juróom-ñeenti wax day fekk ñuy jàng kaamil bi daal di ñibbiwaat dem dem ci daara ay at yu yàgg yu yàgg ñu lépp soog cee tegee sëñ Bamba dafa waxoon ne sama mbir ci dunya lu mujj ñu ëppale woon ca Boodiya lu mujj ñu ëppale woon loolu moo yàq yokk ba egsi fii tey ah barab bii nag benn la ci barab yi ndax Cheikh Bamba ne sama mbir ci dunya loo ko ñëpp ca waxaat na it na sëñ Moussa ne na Cheikh Bamba dafa ma def jullikaay def naa fa loo ko xam def ko jotaay dafa siyaar dafa ñaan abadaat dafa tudd yàlla ak Muhammada ko ñu forot mel yaa nga Touba soo dëkk mooy barab bii tey déem gii bañ tuut tànk xam ko nii la meloon ba tey ji yéen fi lañ ko fekkoon kon leneen a ci ndax barab yi bëri nañ démb yu bëri laa ñuy romb ñëpp ñëw fii yéen dara la sëñ Ba fi ñëwoon si naa li soo mu dëkkoon fii mu dëkk fii waxoon na ne mun a bàyyi moon aada sëñ Fallou boobu mag ñi bëree ngi fi mu ne leen barab bi démb ji bu ñu xamoon li fi nekk duñ fi jóg seen saa seen saa la wax ni la de baaraam yi bu ñu xamoon li fi nekk démb bu taw bi aw bay du ko mos dañ ko jëkkanteeg ba yi lekk ko di ne teel la ko tey ajjuma te alxames la man suba di ajjuma ñu ne ko waaw man du sere kumte de ñu ko waawoo mu ne dama bëgg balaa ñëw ñu def ko nii ku sa dërëm dem sa kër ajjana dana ko toll maa doon seen seen seen seere su boobaa ñu dajale fa lañ fa dajale daa koy tabax ñetti fan lañ ko def daa koy tabax dafa dafa siyaare am sat saaw jóge fa 82 Allemagne ñëw yokk ci 10 ñu kaare ko bi xéewal gi ñëwee sëñ Bamba santaane dëkk bi ñëw ñu yokkaat armeel yi yokkaat déem gi mu yaatoo nii yéen mu sax sam ko yàlla doole xéewal daal koy diglewaat ñu yokk ko keroog réunion bu njëkk ba dajal nañ fi 900000 ak 3 4 tonnes ciment ba ki tepp ñu xamaat 1 million 3 tonnes ciment loolu muy alal boo xamante ne ji bokkut ak lañ fa dajaloon bu njëkk ci 2750 ca moom at 1971 72 la woon yàgg na ci ñenn ñi yàlla nañ ko yàgg a teewe parce Bamba barab benn ci barab yi di sant bu baax kilifa yu teew yi fi ñëw ñu bi ci barab bi nag ñu ngi nii taxaw ak xale yi Eh, euh, yor euh, liggéey bi ci dem gi Serigne Fallou Sow jiite leen ñu liggéey liggéey ba rafet ba léegi kon nag ñu jox Serigne Fallou rek moo sànni ay kàddu bismillah Serigne Fallou asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen jaajëfal bu baax a baax ci ñoo leen nuyu di leen ziyaare di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen teewaay bu am solo bi ngeen teew muy nekk loo xam ne lu am solo lu ñu rafet lu baax a baax la comme ni ñu ko waxee woon rek ñoo ngi fii ci déem gi ci caaween nekk fi ni ñu fi baaxoo nekk at mu jot incha allah ñuy ndawi dëkk bi ñu dénk ñu liggéey bi nga xam ne moom la moo fare fi ci déem gi ñu ànd ak ndaw yu takku te am jom am pastéef nangoo liggéey lool nangoo sonn ngir li nga xam ne moom la magi dëkk bi bëgg ñu defee comme ni ko bëgg incha allahu rabbi ok sëñ Fallou ngeen liggéey ni liggéey bi ni mu rafete nii ak euh, ningeen ngeen euh, manqué woy neen noo xalaat ne euh, la ngeen gën a bëgg bu ko defee mu gën a yokk rek ak ak loo xamante ni yëg ci ak yokkute ci bis bi nii waaw comme ni nga ko waxee rek liggéey bi moom wax dëgg yàlla ñoo ngi ci sant yàlla te ñoo ngi ñoo ngi koy bu baax xam naa ni daal ndaw ñi daal nañ ñaan mag ñi ñu ñaanal ndaw ñu gën a gudd fan te gën a te gën am kàttan gën a am wërsëg ndax wax dëgg yàlla ay ndaw yu am jom lañ yu am pas-pas lañ ñu am pastif lañ te ñu liggéey nangoo sonn it ngir lu baax la kon nag ñun wax dëgg yàlla amul dara lu ñu wax lu wax mag ñi ñu ñaanal ñu ba nga xam ne yéene nañ ko ci liggéey bi ñu am ko comme ni ñu ko bëggee incha allah rabbi bi rek comme ay ñaari kii dafa ne ni danoon na kon nag euh, bi barab bi wéyee muy muy magal gi nga xam ne ci la nekk ci déem gi léegi nag li ñu bëgg a waajal si kanam léegi mu ubbiti jumaa bi loolu euh, nga xam ne mbégte ñëpp muy ñaari mbégte wax di allah loolu moom comme ni ñu waxee rek kontaan nañ ci def lool lool lool moo tax yàlla def na ñoo ngi ci déem gi waaye suñu xel mépp mi ngi ci penc ma ndax bëgg bëgg a liggéey boobu waaye it comme ni ñu waxee il faut am ñu ne fee am ñu ne fii moo tax ñu jaayante ne fii waaye incha allah rabbi bu kanamee ba ñun ñëpp dinañ euh, euh, seet nañu organisé woo ba dem teewe foofu teewe liggéey boobu incha allahu rabbi ndax bis la boo xam ne ku ko tardé du doo ko am bu soobee yàlla incha allah ci dund incha allahu rafet kon mbokk yi ba léegi ñu ngi ci reportage bi rek jógee sa barab ya ñëwaat fii si dëkk bi nag ñëw fii si kër Ba Issa mu war koo jox mu wax ci tey mbégte mi jumaa ji ni am di ko ubbi ak euh, barab bi ñuy màggal tamit muy màggal caaween mu ñaari programme jox Ba Issa sa bokk ci kilifa dëkki bi wax ci ay kàddoom bisimilah Ba Issa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal feq euh, di leen nuyu fii ci Thiawéne Thiawéne nag di dëkku cosaan boo xam ne euh, wax na ne am na juróomi téeméeri at am ñu wax ne sax teg na euh, nga xam ne maam mi ko sancoon maam Souleymane Saw gàddaayi woon Fuuta ngir roy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama sàmm ngoram ak diineem ñëwoon fi di fi jaamu yàlla ba am fi ak njaboot am fi ay sët ba kenn ci sët yi sëriñ Mor saaw moom la fi Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul mbokkam ma ñëwoon fekk si ko fi yendu ñaari yoon ba ker gi sedd guy mu soog a dellu Mbàkke bu soobe am na sax ñoo xam ne ñetti yoon la fi ñëw yendu fi kon nag caawin dëkk bu barkeel la caawin googu nag tey ñoo woote lan lañ woote ndax xam nga ne Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul fépp fu mu jaar rek def nañ ko ak màggal rawatina foo xam ne daf koo tax a jóg mu ñëw fa lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon kon yaakaar naa ne foofu yeyoon a màggal moo tax ñu di ko màggal at mu jot ah, yàlla dogal ren nag bi màggal gi agsi jamono bi ñu koy defee fekk tombeeg jumaa ji nga xam ne ci la nekk at yëpp doon ko liggéeyal yàlla akub yonentam ak si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul jumaa ji liggéey bi àgg ñu war koo julli tey ñu boole màggale ak ubbi jumaa ji ñuy sant bu baax kilifteefu dëkk bi yëpp mi ngi nekk Serigne Baara Mbacke ibnu Serigne Cheikh Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nga xam ne way juróom dafa dëkk fii ci Thiawéne Serigne Mor saaw mooy maamam ñu di ko def ci ndigalul nag Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke nga xam ne bi jumaa ji àggee bañ jox ko caay bi ne ko Serigne Baara ñun de li ñu ci waroon mooy liggéey liggéey nañ ko ba mu àgg sa jumaa ngoog mu ne moom itam kat dafa am kilifa Cheikh Mamadou Mountakha lépp lu ñuy def ci diine di ko def ci yoon wi moo ko moom moo ca sañ a def moo ca sañ dindi kon nañ ànd ñu dem moom yóbbul ko liggéey bi bañ demee mu yóbbul ko liggéey bi sëriñ Muntaxa sant ci gërëm ci wax ci mbégteem feeñal ko bañ xam ko mu daal di ne ko nag foofa yaa fay sëñ Touba yaa ma fa nekkal joxaat naa la lépp lépp loo ci def ànd naa ci ak yow ànd ci ak yéen maa ngi ciy ñaante di ci am mbégte bi ñu ñëwee nag moo waral fi mu nekk nii ñuy waajal woo bokk yëpp waaye sax mu Lamine Bara Mbacke bi mu ñu woowee wax ne nag gannaaw moom lañ jox lépp ne moo ko moom moom lañu ko jox ngir jëmmi Serigne Touba nee na dañoo jaay njuréel gi jënde ko taalibe gi mu di ci sant di ci bég waaye mu wax ne nag dafa am ndigal loo xam ne Serigne Sidi Mbacke Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko ko jox muy julli juma joo xam ne moo nekk ci Touba bi la mooy imam bi xam ngeen ne ndigal nag moom ci murit jëfe rek la waaye mu ne nag kon moo tax dafa ñuy tànnal koo xam ne ni ko boppam doyee nu ko raw loolu kooku la ko kooku doyee kooku mooy kan maam Makhtar si mi nga xam ne moom bokk ci njaboot gi moom sëriñ Mor Xarit si mooy maamam sëriñ euh, sëriñ Asa si mooy juróom sëriñ Asa si nag moom la sëriñ Abdou Lahad joxoon jumaay Tuubaa laal bi mu àggee moo doonoon imaam bi julli gi njëkk bañ ko jullee ba noppi sëriñ mun sëriñ Abdou sëriñ Abdou Lahad Mbacké sëriñ Abdou ko jiite nee na sëriñ Bara ne dafa wax ne koo xam ne julli nga fi jumaa maa ngi ñaan yàlla jéggal say bàkkaar waaye ku fi saxal julli juróom maa ngi ñaan damb sa xalim ak bàkkaar mu ne nag sëñ moom la Cheikh Moulamine Bara Mbacké lool lay ñaan ci jumaa ji yeneen kon na xam nga ne jumaa ji am na tawfeex moom mi nga xam ne moom la ñu tànnal te nee na mët na sëkk lépp ci diine dañ ko koy laaj waaye du ko laaj kenn xam ko ci ak maandoom ak melokaanam moo tax mu tànnal tànnal ñu ko ni ko boppam doye doye ko ko kon ñu ngi ñaan yàlla ci ma du Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Seex Ahmadu Lamin Baara Mbàkke maam mi nga xam ne moom la ñu tànnal di maam Maxtaar si yàgg fi te mu ànd ak wér mu yàgg di jiite ñuy ànd ak moom te julli guñ fi julli yàlla nangu te gërëm ko barke Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ñuy sant bokk yëpp nag ñu ngi sant Cheikh Mamadou Mountakha ci li nga xam ne defal na ko mbokkam mi loolu ñun la ko defal wan ko ne ko ñun kat ñoo bokk lépp ñoo bokk sëriñ bi ñoo bokk liggéey bi kon nag foofu yaa fay sëñ Touba delloowaat ko lépp loolu ñu ngi ko ciy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla def mu àggale ab liggéeyam yàlla na yàlla far ko te jàppale ko àggale li mu doon liggéey ba sëriñ Touba liggéey waat ko te ñu ànd ko ak moom. ma ngi màggal geeg jumaa jeeg lépp kon nag yal na ko teew at yu bëree bëri yàlla na nangu lépp barke Sëriñ Touba kon ñu jàll rek ci reportage bi incha allah léegi nag xam naa si kanam tuuti ñu waajal julli gi bu soobee yàlla. ok ñu ngi toog ak tey ñu ngi rek ñu ngi toog ak imaamu dëkk bi seen bàyyi Alaaji Saaw mu doon imaamu jàkk ji tey ati at ba ji ñu ubbi boole ñaari mbégte muy bisu màggal gi bisu ubbite bi ñoo jox kàddu rek mu yee ci ay kàddoom ñoo ngi leen di nuyu yéen waa rajo bi yéen wa Tawfekh production waaw di leen ndokkeel di leen masawu di leen ñaanal jàmm di sant yàlla sunu borom bu wér a wér di gërëm borom Tuubaa di gërëm suñu mag ñi nga xam ne lii noonu ko xàllaloon bàyyil na ko fi muy ndono ñu topp seen jéego yi ba ak si fii tey ah, di sant yàlla bu wér wér gërëm borom Tuubaa ah, tey ji nga xam ne dem nañ ba liggéey néegub yàlla bu ñu tuddee juma fas ko yéenaa ubbi tey ci ndigalal sëñ Muntaxa njiiteefu Mouhamadou Lamine Baara Mbakke ibnu sëñ Abdoulahi At Mbakke moom sëriñ Touba mu mel ni ak dolle ko la ndax fii ku ñuy wax sëñ maas moo fi njëkk ñëw defan fi lu ñuy wax jàkka di diggante xat ak bant ñu dem ba yàlla indi man ku ñuy wax sëñ moor aada di rakk ci moom indi fi jàkk tabax ko ñu di ci julli ba fas yéene tey jii yàlla yokk ba mu doon juma ñu fas ko yéene ubbi loolu sant nañ ci yàlla sunu borom cant gu wér di ñaan sama boroom mu gën ñu fee bàyyi gën ñu fee yàggal te gën ñu saxal ci njub su ndaw yi nga xam ne moom la fi yàlla def ñoom itam ñu takk jomba liggéey bi mag ñi bëggoon ko ñoom ñu am kattanu defal nu ko it ñoo ngi leen sant te leen ñaanal jàmm ak jàpp ak xéwal yu bari yu barkeel te jàppandi di sant yàlla bu baax a baax ndax ab jullit daa war di sant yàlla boroomam Eh, ndax bu ko defee xéewal mu di ko sant mu di ko doole yàlla daa bëgg koy sant seede laaw ah, dañoo baaxuwut mën a wax waaye ñoo ngi leen di dalal jàmm di ñaan yàlla def defal nu ci jàmm mu njiglaay te lépp luñ fi jàmm yàlla na ko yàlla nangu ñoo ngi ñaanal Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne tey moo fi sunu sunu sëñ Touba sama borom guddal aw fanam te wéral aw yaramam. asalaamaaleykum kon uh, ñu ngi ci fii ci kër xalifa bi suñu nijaay suñu Mbàkke saaw ñu doon wëree kii bi rek booba léegi ci mag ñi dëkk bi ba jóge ca barab ba jaar ci kër al imam ñu ngi fii nag ci kër borom dëkk sëñ Baye Mbacke Saw sëñ Baye sëñ ñu jox ko mu waxtaan ci bisu màggal gi ak jumaa ji ñu ubbi tey Baye sëñ Mbacke bisimilah. bisimilahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan si Muntaxa Mbacke mi yàgg di ñaan si Baara Mbacke mi sax bii mooy nekk ci dëkk bi suñu kilifa taxawuñu ba ñu agsi fii ñoo ngi ko ñaan mu yàgg te lool te wér ba Xaadimu jumaa ji nga xam ne bi yàlla dogal waa dëkk bi liggéey comme àgg lépp àgg ci jàmm ak salaam ki ko liggéey it yi nga xam ne bi ci doomi dëkk bi la ñu koy wax Gedda Saa moo ko liggéey ñu tudd ko Sëriñ Mbàkke Buso ak ñi nga xam ne décor bi ci biir ngeen gis moom it ko ko liggéey fii la dëkk ci Caawin doomi Maas Saa moo ko liggéey kon loolu ñoo ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax di sant gone yi nga xam ne bii ci dëkk bi yëpp ñoo taxaw liggéey bi ba yàlla dogal ma ak si fii dañ ci sant yàlla bu baax a baax baax di leen ñaanal yokk dem yokk yokk barke Sëñ Tuubaa Mbàkke di ñaanee julli julli yàgg yàgg yàgg yàgg képp koo xam ne kii ñëw nga fi te yàlla tax ak ku mën ñëw ak ku mën lépp yëpp tànk dem ak dikk yi yàlla na suñu borom def ko mu tànk njëgal bu jaay si naa Muhammad alayhi salaam jërë jëf ñoom ñu ngi ciy baax a baax a baax nga xam ne bi jumaa ji moom seen wàll ñun ay mag la ñu ba noppi ñoom ko ni ñoo ko yor kon ñoom nañ fonk waxtu yi juróom bu àljuma jotee ñu fonk defar yéen yu baax bañ xuloo bañ a xoo bañ a ñëpp eh, ñu julli ci jàmm ñu jàmm di fonk waxtu juróom ndax fonk yor juróom moom dañ ko war a fonk bu baax baax a baax ñi fi nekk nga xam ne ay tunda naa ñu bu baax ndax boo jàngut doo mën a xam si diine waaw kon nit ki dafa war a jàng lu bon bon boo xamee diineem waaw kooku farata ci gone yi nañ góorgóorlu njàng mi bu baax a baax baax. ñun li bëgg nañ lool ci jumaa ji ndax jumaa ji wax naa ko waxati ko mooy sembulu maanaam caaween caaween ñi fi dëkkoon ay kilifa yu mag a fi nekkoon di tàmbale ci góor ga Souleymane Saw bay Mor Saw mu mag ma ba ci ñu mujj ñi may Mor Ada Saw ñoom ba ci bay Jabel Saw ñoom Moustapha Saw ñoom ñëpp. dëkku diine loon boo xam ne bii tubaarkalla ku fi mës a ñëw sa xol sedd bi yàlla defee nag xale yi ak si fii nag léegi ba indi jumaa jun toll ku di julli rek dégg nga ci yàlla nañ ko teewaat ay déwén déwén ñëpp fekk tatal ñëpp kontaan nañ ci ubbite jumaa ji yéen waaw Moustapha Saw yàlla na yàlla saxal a ay yaxam waaye ndongo ñoom ñi mi fi béyee rek ñoomin baaraak ñoomin um, ñi fi nekk ñëpp rek daal yàlla na yàlla taxawu leen baax a baax ndax man jumaa ji wax dëgg yàlla ku ci bëgg ku ne maa ci gën a bëgg ndax euh, diine def maa ñor ñun dafa wax ne man bannaa lillaahi masjidan bannaa laahu lahu baytan fil janna ku tabax jàkk ngir yàlla yàlla dana tabaxal maanaam néeg ci aljanna néeg bi nag képp sa dërëm dem ci biir euh, ci bis bi rek ci jumaa ji ci bañ ko tàmbalee ba fi mu yegge sa bokk nga ci ñi yàlla tabaxal kër ci aljanna kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal jàmm sàmm borom yi borom jàmm te comme jàmmal nga yàlla defal jàmm. ñu nuyu waaw waañ bi ñi nga xam ne ñoo ñëw teewal ci gis bi tey seen liggéey bu rafet bi ñu liggéey tam cant ak ngërëm di leen daat ko li di leen ko bàyyi lekk suñu bàyyi muy bàyyi xàll gay bàyyi xàll jóob mu def présentation bi ci délégué yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi tey nii ànd ak seen i dawrin seen i daayira jox ko kàddu sant leen gërëm leen ci turu dëkk bi bisimilah. aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ah, bokku jullit yi bokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah, di dalal mm, waa média yi xam ne ñoo ñëw fekk si ñu ci waañ wi. Ah, waañ wi nag tey nekk waañ principal ci gox bi ndax. ni bés bi demee kër goo dugg ci caaween ci pencum caaween waañ nga fa waaye bii dafa nekk waañ principal boo xam ne moom lañ jël tënk ko kilifa yi jébbal ko délégué de quartier euh, ci leeral caaween village la woon donc ba léegi dañuy wax chef de village chef de village bi di bàyyi sëriñ saaw ñu ngi koy ñaanal di ko wax rabbi inzil nii mun sa nan waarakan wa anta xayr munzilin ndax bër barki démb rek la jógee ko baytul ay aram ziar yi yónnent bi waaye mu dénk ko galas saaw galas saaw fàllu galas di ko doxal ànd ko ak isaa ànd ko ak ndongo Gueye ak ñeneen ba ci bàyyi alaaji saaw mi nga xam ne mooy imaam ci juróomi waxtu yi ñu fiy julli ak njaboot gi waaye loolu buñ ko tuddee dafa am loo xam ne toujours mu ngi nekk ci xolu nit ñi ñuy fàttaliku El Hadji Moustapha Sall ndax euh, lii lépp ci loxoom la jaaroon démb ba tey di joro ñëw ñii ne taxaw ci ñoom ñëpp dañ koo miin bu ñu toogee fii ñoom ñëpp seen xol day tooy kon nag il faut ñu fàttaliku ko fàttaliku ko ndax moo jëfam ju rafet taxawaayam bu rafet yaatal bi mu yaatal doomu aadama alhamdulilah bi nga xam ne ñu fi desee ñu fi des ñu ngi koy wéele kon loolu moo indi ni ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dolli yërmaande fa mu tëdd ci barzaq ñi fi des yàlla dafa leen fan bu gudd ànd ak wér euh, kon loolu moo tax bi mbir mi amee te programme bi ren dafa nekk programme bu gën a yaatu ndax at bu jot ku nekk xam na ne fii ci Thiawéne dafa am màggal gu ñuy wax màggalu déem gi déem gi nga xam ne sëñ Touba ñëw na fi toog na fi julli na fi dal fi ñu ziyaare ko te kooku xam na ne fu mu jaar te nit ñi xam na ko xam ko rek foofu day nekk barab bu màgg loolu dañ koy màggal at bu jot waaye ñu dëppale ko tey ren bi nga xamee ne jumaa ju taaru ji nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey yàlla def na mu noppi ñu ne nañ boole bés ubbi jumaa bi ak bésu màggal gi loolu moo tax tey euh, bi ñu gisee programme bi ni mu yaatoo tey ñun délégué de quartier yi ñi nga xam ne fukki quartier la ak juróom nga xam ne quartier bu ci nekk gox bu nekk am na kenn kuñ ko dénk ñu ko dénk ñoo ñu ngi taxaw nii mën naa ci rek euh, Baye saar mii nga xam ne tey ci ay at sax moom nag ñoo moo mag waaye tey bu dee kilifa la nga xam ne ñun moom lañ jiital mooy Baye Serigne Ngom mii teg ci Babou Guèye mi mu nekk chargé de communication ñoom ñaar rek laa ci tudd man sax jarul may tudd sama tur parce que ñun ñëpp ay membre simple lañ xaj na dikk naa ba fii rek ñu jagleele ma ma yëkkati kàddu wax mais ci seen kàddu lay waxe euh, naka bi mu ko defee mu daal di ñuy oo ñu ne dañoo bëgg programme bi ñu demee yéen délégué de quartier yi ren ngeen dugal seen loxo dem téel ñu waañ wu mag bi parce que ñun duñ am jot ku nekk da am waañ sa kër waañ bu mag bi nga xam ne mooy war a dem bernde yi jëm ci penc mi ngeen taxaw ko ba loola amee ñu waxtaanee ko waaye ñun bu ñu delloo ci gox bi ñu fay fekk daay réer lañ fay fekk ndax bu doon ñun la rek maanaam benn cin sax du tàkk waaye mbooloo mi nekk ci ñun topp ñu déggal ñu ba pare ay daayira nekk fi muy daayira yoo xam ne am na ci benn per benn benn bu ci ne rek mën naa mën naa taxaw programme bi mais yàlla def ñu am passé ànd ak ñun ñu tudd ci ñett rek muy kan kanzul muhtadin nuuru daare ni ak matlabul fawsayni ñetti daayira yooyu rek benn bu ci ne rek mën naa doxal programme bi ñoom ñëpp ñu ngi fi seen mbooloo góor ak jigéen kon loolu moo indi liggéey bi nii mën naa am bu déwénee ñi ko dégg te xamuñ woon liñ leen daan jox yéen yéen jigéen ñi dëkkoon ci sancaan yi loola dara teggeeku ci su déwénee suñ ko fekkee jàmm nam daan demee dina ko demee mën naa am ñu doon toggee ca kër sëñ ba fa la ñuy dem ñu doon toggee kër ndongo gee fa la ñuy dem waaye ren programme bi lim changé moo tax mu demee nii mais nanguwuñ dara ci kenn waaye dañuy yaatal kon nag ñu tam ñu ngi leen di gërëm baax di wax ne ñu ngi gërëm waa Thiawéne parce que ak lu métti métti ñoom ñooñu dal te te te dañ dañ ñoo yaatal dañ ñoo yaatal ba sax ba ba ba nga xam ne sax daf ñoo dañoo jox responsabilité boo xam ne sax dafay dem ba dafay diis si amul lenn loo xam ne danañ ko yëkkati te duñu ci boole diñu ci laaj ci xalaat diñu ci déglu yaa ngi dégg am ak ñun wax dëgg yàlla noo xam ne dafa mel ni biñ dëkkee ak ñoom ëpp na téeméeri at kon loolu laa doon kàddu yoo xam ne danaa ko ci wax ah yii nag sëriñ euh, sëñ Siango mi di yëndu kàddu ngërmaane parce que lii mbooloo mi bi ñu dajee magu ci ëpp lewu ci xam ëpp lu ci daraja waaye ñoom ñoo seet li tax rek ñu ne ko jiital nañu la ñun 15 chef de quartier mu ne te lépp lu mu wax ñëpp tënku ci mu ne loolu mu koy seereel mbooloo mi mu ngi leen di gërëm di leen sant. yàgg day waxtu. asalaamaaleykum wa ñu ngi fii ci kër suñu baay Serigne Saw di chef de village su Thiawène léegi dañ moom lañ bëgg a jox mu am ay kàddu yu ndaw yum ci tënk rek incha allah xaar ñu ngi koy jox kàddu gi mu am kàddu yum ci sànni. bisimilah macha allah. auzu billahi min sheytaani rajim rabbi auzu bika min amasaati sayatin wa auzu bika rabbi an yahdun asalaamaaleykum wa wa barakaatu. gannaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa julli ci ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam sant suñu yaakaar tey ëllëg xaadima rasool ñaanal ki fi nekkal xaadima suñu Moustapha Bassir xaadima rasool yàlla may ko fan wu gudd ak wér gu ak kàttan gu mu ak ay rakkam ak taalibe yi liggéeyal suñu Tuubaa lim bañ ci yoon wi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal si nabi sallallahu alayhi wa sallam lii nag maanaam mbégte la mbégte moo xam ne mi am na tàmbali mais amut dayo lu day nii nga xam ne subhaanahu wa taala moo ko digle muy taxawal juma ku ko man yàlla digle ñu ñu tabaxal ku mu agsi fii te ña nga xam ne ñoo ko fondation woon di suñuy mag di suñuy baay di suñuy maam nga xam ne ñoom ñoo sancoon dëkk bi bëggoon lu baax rek nga xam ne moo leen taxoon a jóg bañ lu bon bañ gaay demba ku bëggoon lu baax ku nekk yaay seen xarit ku nekk ci safaan ba yow yaa ànd ak sa bopp mais ànduloo ak ñoom kon nag ñoom loolee nga xam ne moom lañ bëggoon te xar seen tànk tubay di ko fexe di ko dal ba fondement jumaa ji ba jumaa ji ak si fii ñu ànd yi fi des muy sëñ Moustapha Saaw ak Fallou Saaw ak ñi nga xam ne ñooñu àndaloon ba sanc juma fondation jumaa ji di turi ki nga xam ne moo doon suñ kilifa doon jawri ni dëkk bi nga xam ne moo bëggoon lu baax ñëpp fi nekkoon waaye lim daj ci dëkk bi métti woon na lool mooy suñ Mawla de Saaw mhm. yal nañu ko yàlla fayal mhm. yal nañu ko yàlla fayal tey jii day fa mu tëdd su jógoon xolam dana sedd mhm. lu baax rekk la bëggoon te ñëpp la émale woon du doom du jarbaat du jàmbur du kenn lislaam dong moo ko soxloon boo nekkee ci lu baax yaay xaritam boo nekk ci waan ba xamul yow yaay kan loo ko mën a indi lu du lislaam safoo ko kon nag loolu suñ ci amee lu commencé ba agsi fii ñun ñëpp ñu ngi sant yàlla dolli ci lañ ko daan sant nag fu ñu toll ñu ngi koy sant waaye nag danañ ko dolli ci lañ ko daan sant parce que ku ma benn mbir ba mi ba àgg say loxo yi itam dajeeg mu ba say loxo yéen ñi mu seen loxo war ngeen a sant yàlla su neexoon suñu borom du du ngeen ko fekke kon nag comme que loolu am na alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp ñi nga xam ne ñoo bëgg a ñëw ci ubbig jumaa ji seen tànk yi ñëw ak sa tànk dellu ñu ngi leen di ñaanal ci barke Xaadimu Rasuul yàlla bindal leen tuyaabo tuyaaba joo xam ne ji dana kawe seen jort bis ni nabi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi gërëm ñëpp nuyoo te sant goo xam ni amut ab dayoo ñi ngi ñaanal ñëpp di sàkk ñëpp ñaan di balu àq ñëpp di sàkk it baal ñu àq di ñaan subhaanahu wa taala julli ji ñuy def tey ci ndigalal suñ baara Abdoulahat nga ki nga ne mooy Sëriñ Tuubaa ci gox bi lépp moo ko yore moo ñuy wax ñuy def mooy leen ni leen ñu dindi lu wax nuun la lu waxut du nuun ba mu demee caabi jàggam jox ko sëñ Muntaxa Bachir daf ne ko delloo naa ko yag yàgg ma neem ci Xaadima Rasul maa ngi sa mag rek waaye ñun ñaar képp ñoom ci Xaadima Rasul kon nag delloo naa la ko yaa ma fa nekkal foofa ci gox bi yaa fa Serigne Touba noo ko defee noonu la moom tam bi mu ñëwee defi na ko def gën a rafet ba xalaatee xalaat yi nga yaakaar ne moo gën a rafet ba mu àgg oo na mag ñi wax leen la mu xalaat suñ Mouhamadul Mokhtar si bu doomi Asa si moom ni def ilimaan boobu bu ay jullig jumaa moom moo koy jiite ah, waaw moom mooy ilimaan bi nga xam ne mooy jiite ajjuma incha allahu julli juróomi nag ka fi nekkoon ba tey moo fi nekk rek mooy suñu alaaji saaw waaw te it oo ma wax ne na dugg njëkk gi tànn na ñu ko bëgg a def bayaan bi tànn na ñu ko bëgg def lépp wax na ma ko nam ko bëgg a defee yaakaar naa bu ko ñi ñi déggee seen xol dana sedd guy guy guy kon nag moom itam ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te yàlla bàyyi ko sagoom bàyyi ko ci kanam taaliba bay bàyyi ko ci kanam dëkk bi parce que moom day ba ñu suñ Abdoulaat di boole ak moom boobu way jërëm wu jigéen damagul si damagul ko suñ Abdoulaat ba may ndaw la tuuti day ànd ak waa dëkk bii ñu santoon waa Caawin ab néeg ñu dem Touba Belal takk fa am néeg ba pare sëñ bi ne ma neñu ñu sama baay yéen waa Caawin na ngeen dem ci néeg ba bu leen kenn rax bañ demee toog takk jullee tàkkutaan ba sëlmal sëñ bi nuyoo ne salaamaaleykum ñu ne ko asalaamaaleykum salaam wa mu toog ci digg dal bi jublu penk ak kaala ga mu doon kaala noonu ne yéen yi waa caaween ne mbaa kenn raxu leen ñu ne ko kenn ne ko ndongo la lekk moo fi nekk ndongo la taxaw ne ah, man de may Clédor Diagne bi ne ci rajo Sénégal ñu ne ko kon ko noonu yow mën ngaa toog bañ waxtaanee di waxtaan waxtaan wa gën a rafet ci diggante taalibi ak ab ba ñaan des ci mu nañu yéen waa caaween sama loxo bii jël naa leen def ko ci sama jiba te dootuma ko ci génne te booba de way jërul suñ mii mi demagul ko suñu ablaat sama loxo bii jël naa leen waa caaween def ko ci sama jiba jii te dootuma ko génne xam nga loolu de am na kon defe naa loolu am na am na wéer a wéer a wéer lu kenn nattablewut fekkee ba ne kant mooy sa way jur suñu ablaat kan mooy sa maam Serigne Touba direct nga ñëw jàkkaarloo jumaa ji dëkk fi def ak ñun di wax di def ñuy def di wax loo tere ñu bàyyi ko te lu baax rek la lu baax la bëgg ab sëriñ la tey lu baax rek moo ko soxol lu baax rek moo kon nag suñ bintam ñu ngi koy sant bu baax di sant suñ mbokki dëkkandoo yi ak fu mu mën a jógee ak fu mën a nekk ak ku mën a doon ñu ñaan saal su dimbali ñuy ñëpp sàmm ñu sàmm suñu jaboot xam naa waxtu wi du gudd xam naa ñi si bëgg a wax bari na Euh, li ñu bëggoon wax bari na waaye ñu emale ko foofu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi defal ko jullit yëpp barke borom Tuubaa allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa añ ajmain